alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse ajumay tey ji la ca gën a fës suñu lamb mu ngay ñëwaat ci carrière Ama Baldé luñ ca mësta wax luñ ca mësta waxtaane ci wàllum presse bi suñu lamb mu ñu xamale Ama Baldé 14 ans de carrière 14 ans de succès 2008 ba 2022 suñu lamb mu ngi ñëwaat ci ay jaar-jaaram suñu lamb mu ngi ñëw ci face to face bi nar a am ci tey ci arène nationale ba diggante Tapha Mbeur ak ki nga xam si ni moo di Gamou Gueye nar nañoo jàkkaarloo waxtaane combat bi ñu jëm le 24 décembre ak ku ci nekk lang ca beneen combat bu nar a am lu neex mooy diggante Bulldozer ak Caatu Yoff suñu lam mu ñu xamale kii Caatu Yaraax la mujjee daan moom Bulldozer kii di Caatu Yoff ki nga xam si ni moo di Youssou Ndour daan moo tax ñoom ñaar seen combat ñu ko jàpp le 8 kon du mën a yomb beneen combat bu yomb ñu jàpp ko le 14 janvier suñu lam mu ñu xamal ne mooy marle digganteem ak soq niki mardi ci la ñuy def jàkkaarloo foofee ca 2STV heure bantamba suñu la mu nga ñëw ci ñaabu ndaw ci digganteem ak ki nga xam si ni moo di Jokkel combat boobee ñaabu ndaw jamono ji ma nga diwaanu Gàmbi foofee lay préparé bu ñëwee eggali ko doog a bëri combat bi le 12 mars kii di Jules Baldé ma ngay jàppale bu baax a baax kii di Sokh ci entraînement yi ngir mu mën a daan ki nga xam si ni moo di Marley ginnaaw defet bi mu jëloon ci kanamu kii di Franc ngir mu mën a rectifié wu kii di rakk ja di Sokh bu ndaw suñu lam mu ñu xamal ne def na open press am wane na boppam wane na confiance bu mag waaye kii di magam teewoon na soutenir ko donte mi ngi waaj combat moom Sokh ginnaaw loolu suñu lam ma ngay ñëw ci écrit biir écrit face dañoo woon ne waa CNG nañu ñëw seet si leen foofee ci école Sakoura Badiane waxtaan ak ñoom waaye loolee waa CNG def nañ ko ñëw nañ demb jeudi bi waxtaan ak ñoom ñu posé leen i question surtout sax ci wàllum règlement bi ngir ñu gën cee mën a xam lu bëri ginnaaw loolu combat Ada Fass ak Zarko suñu lam mu xamale combat boobe ancien ministre des sports moom lañ ko duppee moom lañ tuddee drapeau ba di Matar Ba mooy parrain bi ginnaaw loolu ñëw ci keneen waa Yaram Aar suñu làmb mu ñu xamal ne promoteur bu bees bi di tëgg la 24 décembre diggante Tafa Mbër ak ki nga xam si ni moo di Gamou Gueye suñu làmb mu xamal ña nga ca préparation yi waaye beneen combat bu ñu nekk ci préparation yi vint le 25 décembre diggante Fourière ak kii di Boy Jules di ab ci combat Jackson ak ki nga xam si ni moo di ñàkk jëriñu ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha allah